le fils de De Gaulle muy dajante xale boo xamante ni ndaanaan la Modou dugg na Pikine duggati pikin génn pikin duggaat pikin xaw ma tey dugg Pikinam bii nu muy demee. mais en tout cas dama leen di wax leen diggante Modou ak ki nga xam ne mooy Boy Niang tey dinañ xam ba xam kan mooy feetu ak kan moo dul feet tey le premier janvier mbokk yi yàlla nañ dugg ci at at bi si jàmm. génn see ak jàmm fekkee at yu bëree bëri ah. mais diggante di nuyu tamit sunu mbokki njaago yi ah di leen féliciter bu baax a baax di leen ñaanal ah fête bi sunu borom defal leen si ci jàmm sunu mbokki njaa njaago yi ndax ñu ak ñoom benn la quoi te seen fel ngay lan yow kaay ma ñëw booy ngay lan. ñoom bàyyi bàyyi ñoom xamal leen ni booy ñaa dong du géwal. da nga ne booy ñaa dong bu ñu demee estade la koy xam mbaa xam nga trondoom géwal la. trondoom géwal la. waaw. Ah. te te te Modou Lo ay géwal dong koy dar ah. waaw yow géwél waaw man Bada Mbaye laa tudd. eh waay damay dem nii sangu ji nii. gars yi kenn du ma jiite saat. ndax li def moo rëy. cee géwél boo ñaata mu dugg xanaa xanaa lu leer wax nag. jërëjëf. eh kaay yow kaay maire kaay. leeral. dem leen ci pansu leeral yaay maa ngi lay nuyu. waa leeral TV maa ngi leen di fay. di leen nuyu bu baax di leen ziar. di leen ndokkale si bés bu tedd bi. di ñaanal Modou Lo yàlla may ko ndam lu sedd guy ni ko yàlla daan maye. yàlla dem si jàmm andi ndam li si jàmm ak salaam ñun ay waa Yoff lañ bëgg ko ba mu jeex tàkk nag heure buy bëri fi la ñuy faase combat ba mu jeex ñu yóbbaale victoire bi. jërëjëf di ñaan yàlla mu andiwaale victoire bi si jàmm ak salaam. jërëjëf boo ñaa ba mu xam ni moo Lo du moroomam ba mu dalee bëri du tey te ba mu dalee daan du tey naa rek la te xam ne moo yaay bisu tey ji mbaa dina yomb ci yen si day yomba parce que xarañ ko xeex ku ci xeex di xeex yow ku ko woo ci bëri mu bëreeg yow na ànd dal ak tey rek mu dóor kare andi waale ndam li xarañ ndeysaan ko ñu xarañ loo la ñu nekk muy Modou Lo ah solidarité baay may yaay faal ah na xool jigéen ñi maa ngi leen di nuyu ah day ni daw yow merci yow yow yaa bëgg Modou Lo soxna si maa ngi lay ñoo lay fay. baa sant bi wér. naka fête ah sant kontaan rek. bonne fête. ah jaajëf ñu fekkee ay déwén yu bëree bëri jaajëf. Ah. xaarañ rek la ñu gëm. tey ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek. waaw ah, ndam li rëy rek mu ñëw fekk jàmm salaam ñu feete ko ak salaam lépp jeex. ak jàmm ak salaam. Pikine ngeen delluwaat de mbaa fa génn. génn loolu nañ doon def rek loolu la ñuy defaat. jërëjëf waaw incha allah. soxna si maa ngi lay. waaw maa ngi lay fay. naka la. man Fatou. Fatou tey préparation bi duggoon ngeen pikin génn seen contre Ama bale tey ngeen jël géwal bi muy booy Niang. fii gën a muus a fi am géwél amul géer amul buñ demee dañ koy defal bagage ñib si waat passé Pikine duñ seen morom dañ leen di duma daan leen dañ leen nokkaat te dinañ leen ñuusaat nga de dinañ dañ leen te dinañ leen ñuusaat dóor dóoraat ci Modou Lo yaa wax loolu waaw waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay tur bi naka mami tey noo leen waajee combat bi am xel mu dar rek te xam ne ñun Modou Lo mooy mooy neex a faral dimanche te ñun ñoo juddoo fii màggandoo fii xam ñun wóolu nañ daal suñu mbër moom waaw ñun moom wër ndam rek. soxna si maa ngi maa ngi lay fay sëñ bi. si tur bi nag la. Maguette. Maguette laa tudd. Maguette euh, diggante Modou Lo Boy Niang coow li bari na ah te Boy Niang fu mu ne dafa làqatu ji nekkul këram actuellement ni may wax ak yow. waa c'est normal loolu lamb la de. lool làmb la sa na maamu làqtu ndax Modou moom ku ko am comme mbër doo nelaw guddi waaw loolu la. Mhm. Modou ku ko am comme mbër doo nelaw guddi. a wax ne Boy Niang du nelaw. du nelaw. du yandoor. bu nelawee du yandoor. waaw bu nelawee du yandoor. ndax da ngeen mu génn jur muus booy ñaa moo xam tax muy laaxatu ji. bu bu demee sa ngeen ko ñuus la ñu sayee. waaw eh, eh, yaa papa nga ne ah, dañ koy duuma rek ndam la rek mu ña ñëw parcelle rek ña ñëw parcelle moom lañ koy yéene te moom la moo fa am waaw yéene nañ ko xol bu sedd guy waaw non. jërëjëf noonu lay demee yaay ma ñëw ci yow ma ñëw ci yow waaye eh, déedéet mais mais ban bañu man fi lay toog waxtaan mais maa ngi lay waaye yow yéen ngeen nekk kër Modou Lo ngeen Modou Lo la wax sa kër gi non non non ak ni nga rafetee non non dama si ah, non non mais yéen lal mais yéen aju woo leen de yéen Modou Lo leen de yaay maa ngi lay nuyu umpaañ umpaañ maa ngi lay maa ngi lay fay tur bi naka man Anta. Ah, ah, seen digganteeg Modou dëkkandoo bi ah tey lan nga ñu sub ah rafet rek rafet moom moom mooy neex a dëkkal neex a faral wóor na yàlla Modou moom amuñu lu ñuy wax si moom zéro faute Modou Lo dafa baax yaru teey wallaahi loolu rek lañ ko mën a waxal mënuñu koo waxal leneen lu dul loolu. mais bu combat amee comme effectivement am combat Modou Lo mbaa doo leen am ay problème yéen yéen ñi dëkk. déedéet day neex neex xumb ambiance beeg yooyu dara dara amu fi fii jàmm rek ak salaam ak xaar couronne bi. mu ñëwaat couronne bi li ko dugal parcelle bi génnewu ko fi de. nga ne hee li ko fi dugal génnewu ko fi. wallaahi maa de yéen koo génnewu rap lañ ko def sànni caabi ji géej. jërëjëf li ko fi dugal génnewu ko. na nga def jongo ba. sant yàlla. mbaa yaa ngi am jàpp. ça va mel ne fête bi jàpp na la na ma. bu baax sax. Ah. waaw. dégg na nga génnoon. bañ a génn. pour ñun rek Maodo Sada génnoon. Ah. day soulagé ñaa tiituñu ko amul benn ñun amatuñ dara lu ñu prouvé am nañ lépp lii la sax ñun bu niilee sabaax na bu niilee sax ñu jël. non waaw lu ñu am rek jël du dëgg. foog jël am kan. foog jël la am Modou bëre bu ñëwul mu jëli ko Modou du xaar du mës a xaar neex a faral dimanche waaye lundi bu tey bi nañ ko def dimaas ndax lundi bi tey bi dimanche lañ ko def tax mu jig ñu moo jërëjëf merci beaucoup mu andi Modou bañul mook Boy ba si biir kaw tribune bi man téere laa lay wax làmb Modou laa lay wax Modou mook Boy bañul ba si kaw tribune bi Boy bu taxawee di moo dina bëre bu bëree moo dina bëre te ñoom waa Pikine ñoom xam na li ñu ak ñoom li Ama manul dara Eumeu Sène manul dara bu dee làmb nga xam làmba Boy Niang manu dara Boy Niang mënul ci dara ci moom. non non lu Eumeu Sène mënul ñaar yoon. mais est xam nga ne Boy Niang ngembowul kër papaam muy dégool. ngemboo fa. yàlla na ngemboo Joal. wala mu ngemboo maatam làmb la fu mu ngan a ngemboo ñëwul. yaa ngi dégg làmb si biir géew gi luy daan mbër. yaa ngi dégg nit a koy liggéeyal boppam Boy Niang bu liggéeyul ba bi bu dee ay ngemb la ko yaakaar barki Seydina Limam bi ma yaakaar du daan. tey ndam li kon day del si non non waaye ñooy tëj moom pare nan bii moonu dese téere laa la wax ah internet vaar internet nga yor man kenn du ma vaar combat Modou Ama maa wax ba doyal moo waxoon leen waa Pikine foo leen ni mujj mooy Ama daa feewal dañu yëpp foo leen mooy booy ñaa tapet la day daw maa leen ko wax. jërëjëf yàlla na yàlla fay la. fay naa la tur bi naka la. Tony. Tony la la baaxee ko ba maa ngi dëkk ba Tony ñëwel nii nga ne. maa ngi xoolal dëkk de waaye maa ngi jóge ba Gambia xoolal di ziar booy yi foofu noonu yëpp ñun Modou rek lañ gëm amalatuñu dara lu ko neex na def waaw fay nañu seen bor lépp luñ ko luñ ne luñ ko jiyoon jox nañu ko. lépp lu mu doon bëgg ci làmb am na ko muy titre roi des arènes. waaw waaye dafa am yenn booy yu nga xamante ne dañu foog ne ñoo ko ëpp doole foog mu won leen ko. tey jii mu ngi doog a commencé. tey jii tey jii nii déedéet commencé na ko Ama tey day confirmé. Modou waxu waxu ko. mbaa kon mairie du ñu leen ko jox. département wala QG quartier général Pikine la jërëjëf. gannaaw yaay joobli lii. siyaar maa ngi lay siyaar. lépp jàmm. naka yi tey. sant nañ alhamdulilah. yow yaa nekk. waaw maa nekk fii waaw. bon depuis ce matin ah. ay vers dix heures yooyu noonu la fi ñëwoon. 17 yi nan lay demee. bon da ngay une 17 ñu tiré la. 300 rek. 300 waaw parce que am na ñoo xamante ne amuñu amuñu doole jënd ay t mille 2000 3000 genre yooyu noonu moo tax ñu gën leen a yombalal rek 300. ngeen yombale leen ko rek 300. waaw 300 robe lépp loo indi kay ñu tiré la waaw. jërëjëf. jërëjëf. xam na kay. taxawaay bi lan la. waaye ndam rek. Oh. waaye ndam lañ taxawaay ndam lañ taxaw rek. suñu doore lañ. loolu tey lay gën a leer. génne Pikine suñu biras joore lañ. heure boo leen bëggee reeni eh. du doon pizza. non non ah, sawarma la. Eh. am nañ fa hamburger am fa am fa eh. des. jeex kese. Fils maa ngi lay nuyu. bilaay maa ngi ci loolu rek. sant Serigne Fall. waaw tey bisu tey ji bisu tey ji. li bisu ndam la. ñun ku ñu xam ku ne laa suñu bis xam ne carrément suñu bis nii la yàgg a mel. doo dégg ñu naan Pikine Caga Njaay eh Pikine Caga Njaay waa ñun li nga nekkee waay doo dégg loolu. maa koy dégg ku sa mbaax toj laa la wax bul tala yooyu dugub. wayaatal ma way ma dégg. ku sa mbaax toj ku sa mbaax la bul tala yooyu dugub kii mbaxalu xeer la ku du mag ma koy yëngal ku dugub la dugub day damm barki Seydina ma xam te baax kenn du jiit si paaka eh. du ko jiitu si mbaram te Modou Lo paaka la barke alxuraanu karim liñ naan pikin caga njaay ah. pikin caga njaay pikin caga njaay wàññi li nga nekke waay eh pikin caga njaay eh pikin caga njaay pikin caga njaay wàññi li nga nekke waay pikin caga njaay pikin caga njaay eh pikin caga njaay wàññi li nga nekke waay noonu la yaa ko am benn yoon ma daal di la ba lépp ndam kay foo leen toll waaw pare nañ nañ daan pare combat yëpp ak bi jàll si kàttan ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Khadim nga xam ne mooy suñu yaakaar mooy suñu ndam ñoo ngi koy ñaan mu mu may ñu si Modou Lo allahu taala loolu la. yow jaay café ba pare faral Modou Lo. waaw mën naa nekk man parcelle 100 pour cent la deretu parcelle mooy daw si man kër soxna Mayam Serigne Touba laa dëkk gi si joor kon man mënu faral ku dul waaw. jeex na ngi dox. bu baax. mais Baye Fall yi kafe ndam lañ leen euh, seggal. jërëjëf waaw noonu la demee. waay sant rek. te ku xam moon ku xam moon neex a faral dimanche mais xale bi mu bëreel doomu Pikine la Pikine yamaat leen ñu war a ñëw. si kàttanu yàlla incha allahu rabi laa mujj gaaw te neex te yomb lay doon ci Modou Lo parce que ñoom ñaar dañoo am qualité bëree boo ñaar day mbër moo xam ne du sonal mbër. te Modou Lo ko sonaloon ci biir géew mënoo koo daan jërëjëf. Cheikh maa ngi lay. waaw maa la fay maa la maa baax. maa ngi waaw wàccaay bi moom. gars li ñu war a def yëpp def nañ ko. li ñu war a def yëpp def nañ ko. dem bëre daal ñu jëm a des. leen doog laa conseillé Modou. booy ñaar day dem te buy dem te moom booy ñaar mooy wuti. kon na ko Modou xaar. na ko Modou xaar loolu loolu laa mu ñëw wala leen daje. booy ñaar bu bu bu li muy bëree bu fekkee loolu lay bëree mu daan Modou Lo te Modou échange de moom moo wut si kon moom moom moom mi wut si moo war a bëre moo li ma koy li ma koy digal Ndeysaan Modou Lo Modou yoon bi moroon a jaar jaaru ko dafa jël benn boo xam ne bu bokkul ak yoonam bi nga xam ne fa la war a jaar ndeysaan Modou Lo yoon bële a génnee dafa njuuy gaa yi côté bële la génnee seex takk nga ko sakk sakk ak sa oto baa ngi noonu Cheikh oto baa ngi noonu oto Modou Lo noonu jaar Cheikh pour ñu jaar fa c'est difficile mais moment bii ñu toll nii foog ñu jaar ne pour mën a koñ Modou loo waa ndeysaan oto bi la ñuy koji oto bi la ñuy koji oto Modou Lo foog ñu koji ko pour mën koo jël rond-point kaas ba eh waaye Cheikh a rond-point kaas ba rond-point kaas ba ngay toj fu ay sànni matt mu toj oh les slippers des grands événements ku ne xam na ne slippers yi yaa leen mën mais bisu tey bésu tey moom di ñaan yàlla ma ñu ndam mu sedd gu incha allahu rabi tam nam ñu ko ba may woon la cinq bi passé incha allahu rabi ñaa mbaa bis bi dina yomb tey non xam yombul te Modou Lo bés mënu koo jaaxal bés mënta moom yaay slippers bu mag bi loolu la yàlla dogal da koo dogal ku nangu lu yàlla dogal doo sonn jaajëf jaajëf jaarama Mbaam mi Cheikh kii dina rey mbaam mi de Cheikh kii dina rey mbaam mi de. Modou neex a faral dimanche xale yaa ngi noonu de Modou de waaye waaye déggal lii waaye Cheikh déggal lii Cheikh jëlal ma ambiance bi Cheikh Cheikh bu la neexee jugal. Cheikh bu la neexee jugal jëlam ambiance bi ndaysaan Modou Lo oh waaye jégal ma sama yaay oh xale yi dañuy daw ba esaat oh Cheikh lii dafa doy waar ci moment boo xam ci ni jëlal ma loolu Cheikh Cheikh jëlal ma BRT bi président Macky Sall moo liggéey waaye Cheikh jëlal ma BRT bi président Macky moo liggéey lii ndaysaan li mu liggéey rafet na. bu ñu ko yàq oh ndeysaan waaye seex jëlee ma sama jigéen ñi ndeysaan déggal loolu waaye déggal loolu seex oh. seex jëlee jigéen ñi seex man jigéen ñi laay àndal seex jëlee ma lii ndeysaan Modou Lo seex jëlee ma loolu cey Leral TV eh doo xool yow seex jëlee ma mbooloo mi nekk ci kaw eh Leral TV. liggéey bi lii la ndeysaan xoolal lii ndeysaan xale yaa ngi noonu jëlama nekk si nekk si BRT bi jëlama BRT bi seex seex jëlal loolu ndeysaan te max li boobu dañ ko ndeysaan ndeysaan Modou Lo mbaa dina den seen nii mbaa Modou Lo buy ñëw dinañ ko dë nañ ko dar jëlama lii Cheikh jëlama lii ndeysaan Cheikh jëlama loolu oh Cheikh Modou Lo rek ndeysaan ndeysaan dégg nga bee laa ilaaha illallah seex jëlal ma loolu seex seex jëlal ma loolu seex jëlal ma loolu seex kii lu ko dal seex jëlal ma loolu oh ndeysaan seex jëlal ma loolu oh ci loone sant yàlla mais na ma naan maa raw coince lan la quel to problème ba nga xam ne gars yi dañ lay daw wala gars yi dañoo nangu tëjal avance yi wala ñi ngay tëkk dañoo bëgg ta bëreeg yow lan la. ah man de man damaa waaru sax si làmb maa ngi nii damay ñibbi nii sax yow sama oto gaare nii pour ñibbi nii. sa làmb tax nga ñibbi làmb moo ma safatul dara làmb safatuma dara yàlla xam na ko. da am problème mu dugg wala la. non non maa damaa indi woon benn booy booy ndengaleer laa indi woon mais après daal na ma ne naa ñibbi seetaani làmb ji waaw. Kowen si maa ngi toog di xaar rek maa ngi toog di xaar waaw noonu la demee. topp nga fi mbër mu bañ na du ma bëree moom Franc. non moom bàyyi ko rek man moom Franc dootuma wax si waxam sax. lu tax ay Franc moom sa waay bàyyi mu jàll rek. man maa toog di xaar rek man làmb kenn mënu ma si génne. ci nga bokk. kenn mënu ci nga ci nga bokk de. ci laa bokk bu dee ne ay ndam mooy boole nit si làmb comprendre nga ah defet te man defet laa bu dee ne supporter mooy tax nit boo ko si làmb bu dee boo ñëwee mu neex mooy tax nit boo ko si lamb man maa ngi si làmb kenn mënu ma si génn mais tey boo xoolee tey làmb ji moo am kumba nday kumba am nday ak kumba amul nday boo si amul bàjjen da si wet man samay victoire ah samay mbooloo mooy sama bàjjen si làmb noonu la demee. kon sama lay seet waaw incha allah maa may ñëw foofu Bargny maa lay xaar. ndax waa Bargny dañ lay yaakaar. billaay noonu la waa dañ la bëgg. billaay lamb Bargny dañ la wóor lamb billaay yaaxu na lamb. bu demee bañ naan mbër benn bitee lay dugal ci géew. lamb yàqu. nga xam ne lamb yàqu na. jërëjëf le oh, oh, oh. maire ma jël jëlal ma loolu oto booy ñaa noonu Cheikh oto booy ñaa noonu waa mais lu mu lëndëm lëndëm bukki for bët. ndeysaan Cheikh Boy Niang ngi noonu le fils de Togo la noonu gaay yi bëgguñu ku laal oto wa ngi noonu ci kaw booy Niang ngi noonu noonu Cheikh Boy Niang ngi noonu les de Doko Dégol guddi guddi bukki forbat ndeysaan laa ilaha illallah Boy Boy Niang ngi noonu Cheikh Boy Niang ngi noonu Cheikh jarama ambiance bi dañuy daan Cheikh Boy Niang ngi noonu eh, eh, waa mbër mbër tey la tey ndaysaan Cheikh Boy Niang ngi noonu jëloon ma gaa ngi xëpp xorom mu ne xaw ma fu Boy Niang nekkoon ndaysaan Cheikh jëloon ma ñu ne ci bi Ndeysaan Cheikh dégga loolu Ndeysaan Cheikh oto booy ñaa ngi noonu Ndeysaan oto bi dañoo bëgg mu yéeg koy laaj kaay kaay Cheikh. Demba Mulo. lan billaay. Demba Mulo bul jooy. sëñ bi dama ne la barki alquranu karim jooy jëlee. Demba Mulo bul jooy. Serigne Babacar Demba Mulo bul jooy. ah eh kii dafa kontaan. xam naa day daan. barki Serigne Babacar. Boy Niang. Mouloo bul jooy. ay waay dem. Boy Niang bul jooy. ñoom courant bi lañ soxla tey nee nañ courant bi lañ soxla ah xaw ma nag mais nee bi lañ soxla tey waaw. te yooyu yëpp oto booy ñaa la Cheikh jëlama oto bii jëlama oto boobu kaay ndaysaan cey sécurité bi nga ne naka yaa ngi si jaw lépp jaamu ndam rek ndam rek tey ah. ndam rek waaw foo leen nekkoon Pikine de jugee wala Pikine lañ jógee déparé wala Pikine lañ jógee sëñ fu mu nekkoon Pikine Pikine tol yi baayam Pikine kër baayam la nekkoon lakkatuwul woon lakkatu mukk Boy Niang du lakkatu Boy Niang rek lañ wax jërëjëf. jërëjëf fi indi ndax président Amadou Ba barki démo Ndiaye ñëpp xam ne dafa jóge Pikine. am lu mu def Pikine am lu mu def Pikine tey nag bu ñu ko tuddee drapeau en tant que le jeune communicateur yi nekk département de Pikine gépp yoon lañu te ñu gàddu drapeau. ay doomi Sénégalais te ñaari doomi Sénégal ñooy jogante nag waaw ndam li génnu Sénégal kon nañ def lépp ci jàmm ak ci salaam waaw. ziar naa la bu baax mon frère di la nuyu bu baax liggéey bu rafet bi di nuyu waa Leeral TV comme ni ko gars yi waxee rek président Amadou Ba wax dëgg yàlla moom moo nu fi indi ndax jina waa Pikine loo xamante nii wax dëgg yàlla waa pikin sax lott nañ ci fay ko ko kon ñi ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla ko yàlla defal xéewal defal ko jàmm ak sutura ci barke yonent bi jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf di sant rek bu baax rek ndeysaan son excellence président Macky Sall waa na nag di sant rek le premier ministre Amadou Ba tubarkalla ñu koy ànd ak kan Cheikh Ahmed Tidiane Thiam le directeur des ressources Azurut li ñu ñuy ñaan daal yàlla na si yàlla def jàmm def salaam ak sutura ak mboolem. jërëjëf sànni ci kàddu. waaw nous sommes des griots nous sommes des fédérateurs looloo nu fi indi géwél ku ko xam-xam ni ci mbaax rek lay dox dañu ñëw soutenir le président Amadou Ba le cinquième président du Sénégal que le meilleur gagne. jërëjëf. Cheikh jëlee ma loolu. qahaar. allahu akbar. ndeysaan. allahu akbar. dégg nga ko nee na yàlla doo fi ne. déggoo la noonu. papay booy ñaa ngi noonu déggoon. Ndeysaan Père de Gaulle am na fu muy joxoñ de Père de li muy joxoñ lan la kaay ah. Allahu akbar dëggoo ngi de xale bi fii lay jaade. Cheikh. fan nga fan nga jëm. fii laay fii lay duggee. dëggoon nee na fii lay duggee. dëggoo la ngi compter de nee doomam fii lay duggee. Dégol nee na fii lay jaar Dégol nee na doomam fii lay jaar setu seex yu lum na maan baa ngi dugg ci setu seex yu lum na maan baa ngi dugg ci bala kolli maane maan yirim sëtu Seex Yërim du maan baay dugg ci sëtu Seex Yërim du maan bi oh. mbala ko du maane maan may sa xëri mi ci xale baay dugg waa kët su looy ree sant yàlla rek ah kët wax sant yàlla rek sant yàlla kët su looy ree yàlla yàlla ànd ak ñun yàlla ñu ci ba turu yàlla bi ngeen dugg see nag loolu moo war laa ilaha illallah muhammad rasulullah allahu akbar subhanallah walhamdulillah laa ilaha illallah jërëjëf war a toog maalaw moo waaw maalaw maalaw bu Wally Seck moo ko téye maalaw bu booy tamit bu booy ñaa tamit moo ko téye mbiskit yi mbiskit maa ngi noonu de mbiskit maa ngi noonu de ñaa mu ngi sangu noonu sotti nañ ko am na luñ ko sotti de am na luñ ko sotti de seex Cheikh am na luñ ko sotti de Cheikh booy Niang ngi noonu de Boy Niang ngi noonu de mbokk yi mbokk yi Boy Niang ngi noonu de Modou Gueye président AS Pikine Boy Niang ngi noonu de Cheikh booy Niang ngi noonu de am nga ko de eh Boy Niang ngi noonu le fils de De Gaulle surtout Cheikh Yérim Ndoumane bi ah. ah booy ñaa ngi noonu de cey borom téléphone yi Cheikh booy ñaa ngi noonu de mu ngay salmu de Cheikh foofu baaxoon na de mu ngay salmu de mu nga doon salmu de mu ngi sottee ko ay biteel de yee Cheikh Cheikh booy ñaa ngi noonu de mu ngi dugg si de papa mu ngay bale de papa ma ngay bale de Cheikh booy ñaa ngi noonu de Cheikh eh ni mu dugg see bi mu sol. lii cuub la wala lan Cheikh Cheikh Boy Niang yére bi mu la Cheikh xool Boy Niang di Allahu akbar Allahu akbar la wax Cheikh Boy Niang cuub la sol de yére cuub yére cuub la sol de Cheikh Boy Niang yére cuub la sol de Cheikh Niang Boy Niang ngi noonu de cay Leral TV Boy Niang ngi noonu de Boy Niang ngi noonu de xale baa ngi noonu de dugg na yor na glace ga glace ga la yor mbokk yi amaan nañu mbégte bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak leeral TV leeral point net may gërëm équipe technique bi nga xam ne àndoon naa ak ñoom tey ci arène nationale lu ko demee leen la Diop maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la jaajëfal suma rakk ji Cheikh maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la ñaanal sunu borom defal la jàmm di gërëm équipe technique bépp fàttewuma leen mbokk yi yàlla yàlla def jàmm ci leeral TV waaye tamit yàlla yàlla def jàmm ci réew mi di nuyu sumay xarit yi nga xam ne ñoo may jàppale saa su ne maa ngi nuyu bu deef suma xarit la suma doom nday la mention spéciale di la ñaanal sunu borom defal la jàmm mbokk yi di nuyu Dumbuya suma xarit la Seck di leen ñaanal sunu borom defal leen jàmm bu baax a baax mbokk yi di gërëm sama xarit moo duggee président AS Pikine nekk nit ku baax nit ko am valeur nit ku am ngor bëgg ma lool di ko ñaanal sunu borom defal la ko jàmm bu baax a baax mbokk yi ñun la ak yéen ak Leral TV a point net gërëm nañu réew mi gërëm àdduna gërëm yen yi nga xam ne yéen a taamu seen émission boobu fàqat di ñaan ci réew mi sunu borom defal ko jàmm di ñaanal PDG sunu borom defal ko jàmm yokk ko di ko wax ne ko ba heureuse de année di ko nuyu di ko ñaanal ñëpp waaye tamit di ko ñaanal suma xarit taalibe borom daaru muy Ibrahima Touré di la ñaanal ba bonne heureuse année càllalum jërëjëf fi nga ko jàpp noonu la heure bu ma la wooyee nga jël sa téléphone di la ñaanal sunu borom defal la jàmm Pa Amar suma xarit jërëjëf Fafa na suma xarit jërëjëf yàlla yàlla def jàmm ci réew mi mbokk yi jërë ngeen jëf seen émission fàqat tey fii lañ koy tourné ci Arène Nationale mbokk yi di leen ñaanal sunu borom defal leen jàmm beneen yoon ak Leral TV Leral point net Pa Maguette jàmm ci yow